salaamaaleykum waaye àbb maama ngaak la mu gën yow àbboo ay maam te sa juróomi ñaari maam ku ko wàññi fekk ci jaam war a gol benn tànk àbb ko gën ndikook coro maaneeg muy set Massamba Gaye rey na gaynde Maysa rey na gaynde ma ne àbb maama nga la mu gën am na ñoo xam ni boo demee seenu dëkk ci rondal gi la ñuy dugg bu gor yi wax a'uuzu billaahi mina riino rajim ñu ni Basiiru mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko ñu ni Amadou mooy Macky Macky mooy am waaye Karim ay Sénégal Karim mooy Sénégal looloo am sunu 500000 voix yi nag sunu 500000 voix yi mës ta wàcc te ñoo ko téye ba mu dëgër kañ di xaar kuy wax waxal sa waxu bopp sa patron yónni la de sa patron ngi raam di chicoté di lamb di seet nu mu def ba jot kuy wax waxal sa waxi bopp ma bëgg ngeen xam ne. fii la ñu toogoon aar Sénégal bi rhinocéros jiite ne président Ousmane Sonko est en de discuter avec le pouvoir ca ca ca ca ca ca kii ja ca législative ya ma génn jéegu mu sóoru ba dëgg xeex ak tas yàgg na noo xeex seytaaneem commencé wul tey moytu leen ko rajim la tey mu toog ne ñu joxaat ko beneen beneen buusi xam nga moom ay buuse koy taal buuse yi taal oto ñoo koy ndax buuse bi saaku xaalis lay doon ñu joxaat ko beneen saaku xaalis mu taxawaat ni Karim et France yéen da ngeen a xamul ki ngeen di faral waa d'accord naa waa kii nee na Khadija moo ne sa ngembal noonu boo ko gisee ci sa la sa sa mbëru gon sa mbëru xarit moytul sopp ba du loolu nga wax d'accord naa ci fukk yoon ak juróom-benn waaye man damaa d'accord ni la ñu waxoon daaw dara manqué gu fi et man damaa taxaw fii xeex bi Ousmane Sonko ne ces juges sont des pyromanes ma xeex mu ni ces juges sont des corrompus ma xeex mu ni ces juges sont nuisibles à la société sénégalaise ma xeex damay xeexaat tey ndax ils son nuisibles à la société sénégalaise man xawma ku weddi Ousmane Sonko waaye man baali bokkuma ci dama koo gëm ndax la mu waxoon tey la woon a garaa léegi kay bu fekkee dafa am ku changer chemise ci diggante bi nan ko piis te xool ko te fa seet kan la waaye du kii moom kii ci Cap Manuel li mu waxoon dara changé wu ci ma ne élection bu jaree ñu dàq ko ba jamono yee di ñëw dañu koy dàq kenn mënu ci dara ndax fii amul benn force bu fi mën a taxaw boo xamante ne du mooy lii jàllal li lii tey bu ko waree dàq dañ koy dàq ah. na ngeen xam ne fii amul par force par la force alliance nag amu fii ñun Ablaye Wade dañu jur ni nit ñi di tegee ay stratégie waxoon naa leen xam leen kuy moome vent rek mais xam leen bu waa bi bu wëlbati ko ci kan lay daal xamu ko tey ñoo moome vent tey ñoo moome vent wax ji fii la ne nañ nañu copparti ko lijjanti ay xaritoo ba jël ba jël affaire bi kepp ko ba jéem a éliminer benn doomu aadama ndax da ngeen xalaat ni amu fi ay mbokk waa léegi kon bu ñu wax comme moom amu fi ay mbokk kay jóg leen rek dem bu ñu def commission d'enquête ñu seet koo koo fi amee mbokk may saag Massamba moo waral ñuy toog ñii ñëpp toog ay mbokkam la nous sommes tous des Karim Wade y aura pas d'élection dans ce pays sans la présence de Karim Wade sur les listes électorales je remercie l'Italie qui est présent avec Moustapha Fall l'ancien collègue Marisol Ndiaye et tout le monde waa je vous remercie merci beaucoup